noo Amadou Ba ma ngay waajal tukki boo xam ne day dem ca bitim réew ba ca dëkk bi nga xam moom la ñuy woowee Espagne li mu fay waajal nag mooy saafonte ak mbokku taalibe yi mbokku jullit yi fépp foo xam ne nekk nañ fa ci biir Europe dinañ wàcc si nag fekk foofu nga xam ni moo di Espagne tukki bi muy tukki nag Espagne nekk na tukki boo xam ni képp koo xam ne bugg nga ci teew képp koo xam ne bëgg nga jox ak moom dañ lay ñaan nga daal di woote ci numéro téléphone bi nga xam moom lañ leen ci jox 77 539 89. 09 539 89 09 kon nak Thierno Amadou Ba khalif ba ca lor mi ngi waajal tukki bo xamni ni mbokku nekk fi nga xam modi Espagne dina a safontek mom mu nek bis bo bu ko kenn